moy mujje Kédougou mooy avancé bu baax euh, Kédougou nak pour nga nous nat euh, son développement il faut nga def comparaison xam Kédougou avant 2012 fu mu tolloon ak Kédougou depuis 2012 avant 2012 Kédougou région là dañ ko érigé en région en 2008 té gis nañu depuis ñu érigé ko en région en 2012 gisuñu dara euh, amul infrastructure socio-économique de base yi mooy yoon amul euh, pratiquement centre de santé bu am solo amul ndox te tout le temps population yi wax nañu seen doléance yi ci ñeneen régime yi mais depuis 2012 euh, c'est vrai que am na lu des parce que état moom yombul munoo ne damay def lépp mooy yow gis nga euh, euh, yoonu Tamba Kédougou gis nga yoon boobu dafa yàqoon complètement parce que yoon boobu dañ ko def vers les années bu ma juumul quatre-vingt-dix donc dafa dem ba yàqu pour nga jóge Kédougou dem Tamba gis nañu dafa amoon euh, dañu amoon jafe-jafe yu bëri mais tey defar nañ ko tey Tamba Kédougou euh, ñetti waxtu rek ngay def nga nga dem boo boo jógee Kédougou ñetti waxtu nga egg Tamba mun nañu euh, lim tamit mooy yoonu Kédougou Salemata. Fofu tamit doléance bo xamné depuis 1960 parce que Salémata eh, faral nañu gis ci navette bi eh, eh, comme dafa bëri ay dex yu ndaw ay rivières donc souvent ay mois d'août yooyu day am coupure c'est-à-dire do mën dem dem Kédougou dem Salemata. wala parfois da ngay dem ci digg yoon bi sax taw fekk la fa mu am euh, cru donc mun nga xaar des heures avant nga mun a traverser mais tey xoolal Kédougou salemata 45 minutes donc loolu tamit je pense que réalisation boo xam ne mun nañ ko lim boo xam ne am na impact ci population yi mun nañu lim tamit hôpital Kédougou bi je pense que temps yoolee def naa fa visite je pense sénégalais yi ñëpp ñu seetaan télé gis nañu hôpital boobu de niveau deux l'hôpital hôpital boo xam dafa am ay euh, vraiment dañ ko dañ ko defar defar bu bu bu rafet dafa am ay qui euh, euh, équipement yu dernière quatre génération donc hôpital bobu tay te xam gis nañu dañuy def day changer euh, en tout cas des améliorer quotidien euh, wa Kédougou parce que fofu tamit gis nañu euh amoon na ay euh, fièvre yu bëri il faut ñu def dem ba Tamba té gis nañu ci évacuation yi ñu bëri dañu don gaañu entre Tamba Kédougou lolu dina permettre actuellement que lolu du fi am. Euh, té maladies tamit xam nga souvent bu ñuy dem Tamba dañuy def accompagnement dañuy dem Tamba té xamuñu fa dañuy donc am voilà mun nañu lim château d'eau bi te ku xam kédugu xam kédugu dafa amoon problème ndox parce que euh, zone la boo ne amul nappe phréatique ay poche d'eau donc de tous les régimes euh, qui sont passés euh, Kédougou wax na leen suñu doléance amuñu ndox jàppale leen mais je pense que tey Macky moo ñëw def château d'eau château d'eau bi na def ko itaato def ay tiré ko tiré ndox bi foofu def canalisation 12 kilomètres indi ko ci benn bërëb mooy bande fasi def euh, benn bassin boo xam ne dafa am capacité cinquante mille mètres cubes donc tey euh, d'ailleurs commencé à fonctionner euh, ñu waa Kédougou mom tay ñëpp nangu nañu ño xamné ne dañoo am réseau euh, eau bi léegi amatuñu problème té ndox bi dafa am qualité légui nak c'est vrai que dañuy ñaax kii bi état bi pour ñu mun def un réseau intérieur yob yóbbu ko ci quartier périphérique pour ñooñu tamit mëna am ndox surtout que quand même bassin bobu day permettre ñu ñu alimenter Kédougou peut-être que ba Bandafassi bon bu lolu weesoo mënuma jéxal limbi sans pour autant euh, citer euh, réalisation bu ñu def ci justice parce que euh, ñëpp xam nañu doléance bu bu don bu génn bu doon ñëwaat tout le temps ci régime yi yépp mooy Kédougou comme am nañu autonomie par rapport à Tamba dañuy bëgg quand même pour defar casier judiciaire pour defar société pour defar NINEA pour defar registre de commerce dañ ko bëgg defar Kédougou ñun tamit. exactement loolu moom question bu am solo la xam nga Kédougou zone aurifère la te boo waxee zone aurifère rek euh, ñu bëri dañuy xalaat dafa am or dafa bëri emploi eh, te c'est pas le cas eh, man je pense que pour ñu mën a analyser situation bi lu tax mu am problème eh, mun nañ ci lim ñett mbir mooy benn bi mooy formation bi tey souvent bu jeunes yi demee ci société yi pour bëgg am liggéey souvent lu ñu leen di wax amoo leen formation donc euh, loolu problème la loolu souvent day euh, day day indi problème euh, parce que dañu am benn lycée technique et minier donc je pense que lu ñu war a def mooy formation boobu mooy ubbi filière mine bi former jeunes yi loolu benn pàcc la ñaareel bi mooy lu ñuy wax sous-traitance mooy souvent Sabodala moom am na ay activités yu bëri yoo xam ne du ko def moom def koy sous-traité jox ko beneen société te constat bu jeunes yi def mooy souvent sous-traitant yooyu au lieu ñuy jël jeune Kédougou souvent ñoom dañuy dem jël seen jeune ci yeneen dëkk jël leen yóbbu leen Kédougou eh, te bu ñu leen yóbbee ñu leen ñu dugal leen ci ci ci ci ci ci bi ñu ñu continuer bi jeunes ñuy toog alors que ñoom bu dem ci sociétés directement société eh, non expérience amoo formation alors que ñu gis jeunes ñuy amuñu formation amuñu expérience donc c'est mu ngi indi frustration donc trouver tamit solution bi société yi dañu société yu ñuy sous-traité Nous... Euh, en tout cas ñaax wax pour ñu euh, ci oui pour ñu mëna ci société yi ñettal mbir bi euh, petites et moyennes entreprises nekkuñu di bénéficier lu ñuy wax euh, achats locaux yi c'est-à-dire mooy euh, wax naa ko léegi ci en français boo demee Burkina ñoom dañoo waxtaan société minière yi ak entreprise locale yi ñu lëkkaloo euh, def en sorte que ay yu bëri mooy par exemple lu ay lu mel ni poulet de chair nous melni nen lu eh, produit maraîchage ñu dañu def convention pour que nous ñi ñu fournir société bi té avons constaté que souvent euh, petites et moyennes entreprises bénéficient du marché donc nous motax euh ñu bari du ñu sen qui ci euh, financière, qui euh, ci en tout cas exploitation minière donc solution bi moy ñu comme Burkina jéem xol gouvernement bi ak euh, société minière et ak entreprise yi xool nu ñuy petites et moyennes entreprises pour d'abord nous formaliser les jappalé len ci formation jàppale leen ak accompagnement bi pour ñu mën a am équipement yi pour mën a fournir société bi. am na am na ay chantier comme ni ma la waxoon tout à l'heure dama mënuma woon lim yëpp dama lim rek chantier yoo xam ne presque pare nañ yoo xam ne euh, en tout cas walla même bu parewul mais euh, à presque quatre-vingt-dix pour cent. Euh, par quoi uh, Tay uh, chantier Promoville parce que état uh, en tout cas décidé na dina def 7 km km dans le cadre du Promoville promo Promoville bi ñu ngi ci actuellement euh, d'ailleurs en principe euh, ministre Samba Ndiobène qui xam le moo de mbirum Promoville war déplacement pour voir exactement euh, disposition de ñu pour mën démarrer qui promouvoir parce que président foofu jox na ay instructions pour nous nous euh, góorgóorlu daal def euh, tout le nécessaire pour mën a démarrer Kaffrine Kédougou ak Fatick waaw parce que ñoo ñoo des ci Promoville euh, te xam naa ne tey tey tey loolu préoccupation bu rëy la ci Kédougou parce que poussière bi dafa bëri actuellement te vraiment loolu dafa am njëriñ ñaareel bi mooy boo par exemple ci ñuy defar route route Kédougou Salémata ñoom tamit yoon bi war nañu def ay bretel mooy am na euh, def euh, yoon ko parce que xam zone touristique la donc euh, vingtaine de kilomètres vingt-six je pense kilomètres dañ ko war a defar pour nit ci mun a dem euh, cascade euh, fekk amuñu jafe-jafe dañu def benn bretel tamit pour yóbbu ko Nénéfitcha parce que Nénéfitcha commune la bon commune bu ñu xam la parce que voilà euh, ñëpp dëgg nañu hôpital Nénéfitcha donc foofu tamit dañu def benn bretel mais dañu defar 4 kilomètres 400 ci biir ville Kédougou pour euh, Kédougou mun a am route intérieure parce que comme ni ma ko waxee léegi souvent Kédougou euh, tey tey tey dañu am problème route intérieure parce que route bu ci jaar mooy euh, corridor Dakar Euh, donc loolu am et enfin mun nañu wax stade régional bi c'est vrai que commencé na mais affaire bi dafa xaw a tuuti mais ñun waxtaan nañu ak ministre des sports en tout cas nous avons ay engagement que euh, dina dina ci taxaw euh, pour euh, vraiment réaliser réaliser stade bi rapidement pour que Kédougou à l'instar des autres régions mun am mom tamit stade am comme Tamba. Mamadou Saliou Sow première ambition euh, def tout pour que. Kédougou dem kanam parce que eh, wax naa la fi yu bari euh ay défi yo xamné ne war nañ ko relever mooy eh, lolu il faut que eh, nga nek ci responsabilité pour mën relever défi yooyu ñaarel ambition bi ma am moy fexe ba responsable yi nekk benn parce que ñun Kédougou euh, suñu problème tout le temps mooy suñu division yi parce que euh, li may faral wax bu dee euh, da ngeen féewal te bëri woo leen du ngeen mun a porter seen doléance yi kenn du leen respecté donc tey sama ambition mooy vraiment fexe ba responsable yi ñu nekk benn ku nekk nag mun nga am sa ambition loolu moom politique moo mel noonu bon ensuite man wax naa ko léegi ma ma bokk ci coalition bokk ci parti euh, mënuma ne lii laa bëgg walla lii laa bëgg mais dañuy toog di waxtaan bu ñu waxtaanee bu jubo et que euh, ñu ne ah ñun de Sow fii lañ la gis à ce moment dina jël sama responsabilité en tant que responsable pour ne waaw d'accord nangu na ñu liggéey pour xool en tout cas pour def euh, euh, pour jéem en tout cas euh, gagner élection yu ñëw parce que de tout le temps division bi mooy tax benn nit boo xam ne deful dara loolu mooy tax muy ñëw di gagné ñu ne kooku moom moom kedu fekk minori dafa minoritaire mais tout simplement euh, dañoo diviser dafa ñëw profiter ci division bi loolu moo tax mooy tey tey tey lu gën am importance mooy fexe ba responsable politique yi euh, lëkkaloo nekk benn pour mun a aborder euh, élection yu ñëw yi responsable pour man doo ne man damaa bëgg lii voilà da ngay dem liggéey bu population bu ñu gisee sa liggéey ñoom ñoo lay ne ñun bëgg nañ la ñu yóbbu la voilà man ci loolu laa nekk.